démb nag na jël na ko pour la sixième fois mu daal di jël coupe bi ci kaw Paris Saint-Germain mu nekk match boo xamante ne ni premier mi-temps bi 0-0 la waaye ba ñu jugee ci Versailles ba ñëwaat la ki nga xamante ne moom mooy Coman daal di dugal ci camp parisien yi maanaam français yi moom moo rey benn équipe bu français. match de tous les dangers la woon gëm naa ni niñ ko doon xaarandee xaarawuñ ko woon sax euh, début compétition bi ba tax na Paris Saint-Germain moom wane euh, dooleem yëpp wane woon tamit euh, talent yëpp ba agsi ci bi waaye Bayern nekk équipe boo xamante ni daanaka ñu mu tasanteel ci compétition bi ñëpp la dóor ba ñëw nag daal di dóor waa Paris Saint-Germain ñi nga xamante ni jàppoon nañu confiance waaye nag démérité wuñu parce que def nañu lu ñu mën. Amina cette finale était une bu ko Paris Saint-Germain dóoroon dina nekk loo xamante ne mu sa am Paris Saint-Germain jël UEFA leneen li nga xamante ne am na mu nekk ci histoire yi équipe bi na bi nga xamante ni moom moo jël UEFA bi ba champ ba compétition bi commencé ba tey amu ci benn yoon défaite loolu tamit mu ngi ci biir histoire kon dugg na ci analyse yaakaar naa ne kon démb moom c'était une jour historique ci wàllu football moo tax journal bi ne fi mu toll nii Paris Saint-Germain li nga xamante ne ni moom la ñu yelawaanoon lépp. dafa mujj këpp waaye nekkul këpp boo xamante ni këpp gàcce la ndax 1-0 la ñu ko dóor. bi mooy sixième euh, titre Ligue des champions bi nga xamante ni waa Bayern daal dinañ koy emporter ba tax na nag journal bi comme ci yaatal ma nag nee na Bayern daal dina rejoindre équipe bu Liverpool ci palmarès bu riis bi nga xamante ni am nañ ko jamono ji daal bekk équipe boo xamante ni da nga doon nelaw ba yaan door jot na ngay bàyyi xel waa Bayern ndax néewee nañ doole. ndax ñëwee nañu doole yaakaar naa ne ginnaaw Real nekk ñu ngi ñëw ci ginnaaw ndaxte fi mu toll am naa li ma am ci pot bi kenn amagu ko ci ñu nag ci journal bii nga xamante ne ni moom mooy journalu suñu làmb nga xam ne début yam ba fu mu toll nii ci làmb rek lay wax mu daal di ñëw ak ñun ci feebar bi nga xamante ne ni suñu papa Mbaye Guèye feebar na ko fi mu toll nii nag am naa ko ne xam na Mbaye Guèye ak GIA moo tax waa GIA nag dugal nañu seen loxo bu baax a baax a baax ci feebaru ki nga xamante ni mooy suñu papa Mbaye Gueye le premier Tigre de Fass. premier Tigre de Fass comme ni nga ko waxee rek suñu papa Mbaye Gueye nekk nit boo xamante ni dootuñu ko présenté ci làmb mu def lu nekk nag jël fi drapeau bu nekk jël fi compétition bu nekk ah, jamono ji nga xamante ne daal dinay jëmal mag rek AVC daal di koy ah, daaneel ba tax na ah, tànkam gauche bi ak loxo gauche bi daal di paralysé ba mu tëdd ci saa si comme ni nga ko gisee rek waa GIA daal dinañuy débloqué lu toll ci 400 000 francs CFA pour daal di ko koy jàppale. pour daal di ko koy jàppale leneen li nga xamante ne mi ngi ci journal li muy diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine ñu ngi doon wax naan taxaw na ak taxawul yàqu na ak yàquwul ñu bari ñu ne am na benn promoteur bu jóg pour tëgg ki nga xamante ne mooy Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo ni moom mooy papaay Boy Niang numéro di déggul itamit yëkkati na ci ay kàddoom. Euh, noonu la demee boobu tey ñoo ngi doon wax naan màggale coow yi nga xamante euh, làmb ji am na ko jamono ji amul benn mbër boo xamante ni jotagum na avance mu nekk rumeur boo xamante ni tasoon nañ ko ci journaux yi semaine bii nii ñu passé waaye dafa mel ni nag daal di nañ ba tax na ñu ñuy xamal ni rek benn promoteur bu nekkoon ci ginnaaw dem jéema a doxal Balla Gaye ak Boy ñaar daa mel ni daal dinañ koy freiné ca na mu gën a gaawee ndax euh, Pape Thialis daal dinay sauvé yooyee affiche ba tax na kii nii di mag Max Margan jàpp na ne benn lobby moo nekkoon ci ginnaaw rek euh, bëggoon a formaté li nga xamante ni rek moo di démarche yi njotoon a def kii nii di dëggool tamit daal di ci yëkkati kàddoom daal ni même pour un milliard ñoom du ñu mës a trahir ki nga xamante ni moom moo di Pape Thialis ndax seen kàddu jiitu na leen yaakaar naa ne ay kàddum ngor la boo xoolee Pape Thialis moom moo tëggoon combat Sa Thiès ak Boy Niang numéro 2 kon am na colère bu leen lié diggante ñoom ak waa kër Boy Niang numéro 2 mu nekk loo xamante ne nii bu fekkee tëgguñu parce que Amina làmb dafa am ñoo xamante ne dañuy yàqalaate dañuy bàyyi ba promoteur tëggu ñu dem ci suuf di fa yàq nañu bàyyi yooyu ñii dañoo ñëw pour dimbali làmb dañoo ñëw pour suqali làmb leneen li nga xamante ne ni mi ngi ci journal bi daal di koy bind ni départ d'Alioune Sarr le 31 octobre fi mu toll nag ki nga xamante ne moom mooy le ministre des Ba mi ngi préparé sargal boo xamante sargal aj jëlañ ko tuddee dañ naan am na ñoo xamante ñoo ko doon xaar am na ñoo xamante tey dina leen neex am na ñoo xamante du leen neex boobu ba tey ñoo ngi doon wax naan Aliou Sarr dafa wala jógee ci tetu CNG daal di cédé place bi ñeneen wala sax bu ko mënee cédé ak mbër boo xamante yàgg na fi xam na làmb loolu nag dafa mel ni daal dina dem octobre incha allah waaye dem boo xamante ni dina nekk archive ndax ñoo ngi koy préparé benn sargal dajji sargal boo xamante ne ni du am àpp ndaxte Alioune Sarr fi làmb yegg si moom moo ko fi andi ak lu coow li bari bari bari bari dafa contribuer bu baax a baax baax ci làmb kon yaakaar naa ni képp ku mës a takk sër rek war ngaa ñëw fekkee si sargal boobu noonu nga xamante ne ni moom lañu ko bëgg sargal journal bu Source A dafa ñëw ak ñun ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy juge yi que fan yi ñu ngi doon dégg ñu am nañu grève ak amul grève coow li bari moo tax journal bi ñëwaat journal bi ñëwaat na ci comme ni nga ko gisee rek jamono ji ci magistrature bi dafa am coow lu bari loo xamante ne moom moo fa yeewu ba tax na ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mor yi nekk psychologue clinicien laa dina ci yëkkati kàddoom di yëg leen ni euh, des fois euh, am na loo xamante ni mën na firnde li waral magistrat yi di am yenn comportement yi waaye tamit ñi ngi réglé waat daani ni dans les normes magistrat war naa mën a wax ba pare sax nga daal di koy teggi mais Sénégal xamuñu foofu xamuñu loolu magistrat bu waxee kenn ci teg jàpp nañu daal magistrat moom bu waxee kenn du si teg baat te li nga xamante ni moom la sëriñ Momar may wax bokkul kon ak ñun luñ jàpp ndax magistrat mun naax ba daaneel nga ne ko la nga wax dañu koy dindi teg ko ne teg li nga la ma wax man kon yaakaar naa ne journal bu Source A foofu la ñëw ak ñun ñu daal di jaar nag ci journal bi nga xamante ne ni moom mooy journal bu l'Observateur journal bu l'Observateur nag dafa ñëw ak ñun ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo gérer wàllum santé ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo wàllum éducation wàllum transport wàllum ñoom ñëpp fi mu toll nii Amina dañ leen daal di fësal ci journal jamono jii dafa mel ni seen bopp bi yenu na bu baax a baax mu nekk Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé Malick Sall ministre de la justice Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur Omar Youm ministre des transports terrestres Mamadou Talla nekk ministre des énergies affaires yooyu noonu ñoom daal jamono ji dafa mel ni ñoo ngi ci seen euh, guddi gu bët setagul ndax revendication yi bari na li askan bi di kaas bari na li ñuy xëy di ko lijjanti suba ba ngoon jot bari na mu nekk ci wàllum santé éducation transport énergie intérieur justice ak yeneen yu ni mel ak yeneen yu ni mel yaakaar naa ne yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne bu ci sooxee rek réew mi da koy yëg par force parce que bu santé bi soo xewee Amina Ndiaye fu ñu jëm bu éducation bi soo xewee xale yi fu ñu jëm transport bi waxi nopp énergie bi ak li nga xamante ne ni moom mooy la Aly Ngouille Ndiaye di gérer muy Sénégal ak li nga xamante ni moom lay doxee yaakaar naa ne du ñu fa ndax li nga xamante ni moom la ñu gis ci benn auberge fële ca Malika dañ faa fekk koo xamante ne dafa ñàkk bakkanam diwaanu Malika fa la xewee ab benn waay boo xamante ni ngi tolloon ci 43 ans ajjuma ci ngoon la daal di ñëw ci auberge bu Malika ba mu fa dikkee nag ginnaaw ba mu remplir formulaire yëpp ba di daañ ba ñu daal di koy jox chambre moom ak ndaw sam fa nekkandoo loon fanaan nañ fa ba bës set di samedi soxna sa daal di xëy dem jëndi loo xamante ne dañ koy lekk ay genre fruits ak affaire yooyu noonu ba mu di fekk waa ji ci boppam daal di tëdd jaax Khan noyeetul mu daal di koy saytu ba mu ko xoolee gis ni kii nii ça ne va pas ci la daal di woo ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réception bi ñu ñëw waaye bañ dikkee ba ñu xoolee fekk nañu mu daal di sedd gi ci saa si ñu woo police woo sapeur pompier ñu daal di ñëw def lépp hôtel ba dañ koo tëj waaye déposition bi nga xamante ne soxna si moom la def mooy que ne ba muy xëy di ko bàyyi ca néeg ba ca suba gi dafa mel ni dara dalu ko woon ndax mi ngi tëddoon di nelaw ba mu ñëwaatee daal la loolu xew ak lu ci mënte xam daal ndaw ya ca Malika jàpp nañ ni Touba dafa nekk zone boo xamante ni dafa historique li fay xew ci wàllum diine dafa bari donc dafa jot ñu daal di tëj auberge yi. dafa jot ñu daal di tëj auberge yi yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni mbirum yoon la kon nañu ko bàyyee ak yoon ndaxte koo xamante ne ni yéen a fanaan nga yeewu dem jëndi ba ko fa ñëw fekk mu ñàkk ba kanam yow doo ci set ak lu mën a xew xanaa yoon def liggéeyam ba dossier boobu daal di leer. ba tey journal bu l'Observateur dafa des ak ñun rek ci li nga xamante ne moom moo xew ca diwaanu Thiès muy fam dëmm boo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan noonu la xewee Tiwaawoon la xewee ab benn famille boo xamante ni euh, papa ji soxnaam ak doomam ñoom ñëpp ñoo daal di ñàkkandoo seen bakkan mu nekk loo xamante ni nag yéeme na lool drame familial lañ ko mën a woowee lu ci mënti am daal journalu l'Observateur mi ngi yëg la ni xamaguñu li waral loolu mais bis boo jàllee ci journalu Tribune dina wax leneen journal bu tribune leneen li mu wax mooy ki nga xamante ne ni moom mooy Cheikh kan di papa ci xale bi di soxna tamit di jëkkër ci soxna si moom moo rey ki nga xamante ne moom mooy soxnaam ak doomam ba pare daal di rey boppam. contradiction baa ngi noonu ginnaaw li journal l'observateur wax tribune nag daan nañuy ñëw génneel ñu turu ko góor ki mu tudd Cheikh Kane ci diwaanu Tivaouane jàpp na ni Cheikh Kane moom moo fàtt bakkanu soxnaam daal di faat bakkanu doomam ba pare daal di xaru ci jëmmi boppam d'après journal tribune li mu fësal. yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni euh, dañuy bàyyi rek yoon xaw ma na fu yoon di defee liggéeyam fii parce que ki faat ba pare daal di faat boppam moom dañuy ñaan rek suñu borom jëmmal jàmm ci réew mi ndaxte nekk na loo xamante ne ni metti na torop metti na torop comme ni ñu ko waxee rek ba tax na nag dafa mel ni lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru revue de presse yéen mbokk yi ñuy bëggee di ñu safoo saa su nekk sur la BP Actu du ñu def lu dul di leen jërëjëfal rek Omar nooy tàggatoo ah xanaa di leen jox dig daje rek ba suba incha allah yéen mel jóge fi ndaxte tiital nañu torop